Bonsoir, Serine Diop, JC. Bonsoir, cher Abdoulahad. Moustapha Ndiaye. Sheila Jamila. <laughs> bon dañuy dañuy njëkkee ci nuyoo ba pare <laughs> comme ça on va. faire des voilà des salutations le temps que ñeneen ñi di ñëw bonsoir euh, Chérif Diaité Elio ñëpp lay tudd seen tur Maymouna Ba Saliou bay Baye Fall Pouy euh, Babou Mbaye Elio Habib Sy <laughs> Cheikh Abdoulahat tudd naa sa tur Alpha Maïro, Jumeau Ndiaye, salut. Tati Ould, bonsoir à toi. Gamo Sall, bonsoir. Abdou Sadir, Aboubakar Sadir, euh, Mohamed Souleymane Aïdara. Bon, yéenay wax à combien de vues ñu con ñu ñu commencer suñu direct. On va commencer le. Bonsoir Ada, Djibi Bardad. Mohamed Souleymane Aïdara, bonsoir. Abdou Aboubakar Sadir. Yaya le Catalan, bonsoir. Bigédé Sama Astou. Serine Abdou Khadr Gay. Ça Hello Mohamed Ndoye. ah maa fi diggee ay nuyoo de. waaye koor bi mi ngi nii rek ñu ngi woor hello Eva Top miss you salaam ab Ahmadou Alamine alors à 300 d'accord Mahmed Konté Fatou Talibé si Aïcha <laughs> Bambaka euh, euh, Pape Amadou Ndiaye merci beaucoup Aliou Badara Alors, nous sommes à 327. Shérif Diaité, Seydina Ndiaye, Ella Bifsi, tu me manques beaucoup. <laughs> oh my Mon Odou John, Shérif. D'accord. Maintenant, nous, nous, nous, nous, Dia Noumé, ça va? <coughs> Fadel, papa est là, on commence. Faldis. Merci beaucoup. Bonsoir, ma, Mamoudou Boy. Alors, à 370, nous allons démarrer. Ok, pas tout à l'heure. La future journaliste. Hello, Facho. Faye. d'accord. Alors, merci, merci à tous. Tout d'abord, Malin du New Euh, je vous salue tous. Je vais mixer comme d'habitude hein, français et wolof en même temps pour que ñi nekk ñi ñi déggul wolof mën a comprendre ñi déggul euh, français xaw a jëli tuuti lu ñuy wax. alors aujourd'hui euh, comme ni ma ko annoncé ci euh, ci publication yi ci affiche bi et tout ça nous allons euh, 500 dafay xaw a dafay xaw a day xaw a yàgg aussi on n'entend rien ah bon. alors tey nag euh, dañuy dañuy dañuy def de manière très rapidement essayer de décrypter comme je l'ai annoncé euh, décrypter euh, li nga xamante ni moom moo di discours bi Macky Sall tenir tout à l'heure à vingt heures par rapport ak mesures yi ñu jëloon état d'urgence bi depuis le 23 mars ba tey ji di 11 mai donc euh, def na discours def na def na discours boo xamante ni ci biir waxaale na fi peut-être def na benn ramassé ci côté état d'urgence bi euh, lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu si jot a def euh, résultat yi ñu si jot a am et tout ça mais li gën a marquant ci point yi je pense que mooy assouplissement mesures yi les mesures ont été assouplies bu son bi baaxul rek ngeen wax ma les mesures ont été assouplies parce que gis ngeen ni couvre-feu bi euh, yóbbu nañ ko de 21 heures yokk nañ ci une heure de temps décalé nañ ko une heure de temps de même que ci commencement bi de même que heure bi ñuy arrêté couvre-feu bi 22 heures à 5 heures du matin pour peut-être permettre euh, à, aux, aux, Sénégalais et surtout aux musulmans de pouvoir accomplir et de s'adapter en même temps si horaire u euh, ramadan bi alors mesure la boo xamante ni à coup sûr am na si ñoo xamante ni arrangé na leen bu baax a baax parce que même les, les, les des associations euh, nationales des imams et tout ça bindoon nañ gouvernement bi pour ñu mën a assouplir mesures yooyu et je je pense que leur euh, appel euh, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que lii nañ ko euh, assouplir nañ ko alors bu weesoo loolu wax nañ aussi ci horaire ouverture marché yi également wax nañ ci li nga xamante ni moom moo di reprise des cours le juin luy gën a lu ñuy gën a wax tey peut-être pour un peu éclaircir certains points mooy ouverture au marché yi vous avez vu que il y a une semaine je dirais une semaine et peut-être quelques jours mairie yi dañu jëloon je dirais même euh, Dakar ville de Dakar ci boppam la ñu wax que ne lépp luy marché à partir de euh, semaine passée lundi dañ koy tëj marché yi dañ leen di tëj mais dañ koy tëj pour trois jours tëj ko le week-end gis nañ ne euh, commerçant yi loolu bon arrangé wu leen woon mais euh, ku nekk je pense que crise bi da nga koy analyser ci sa ci sa bopp c'est en fait foofu la problème bi nekkee parce que le problème avec euh, euh cette crise la mooy que ne ku si nekk da koy analyser mënul am unanimité il ne peut il ne peut pas y avoir unanimité dans la gestion de cette crise tout simplement euh, parce que dafa am ñoo xamante ni daf leen di arranger par exemple commerçant yi depuis que ñu tëj marché yi vous voyez que ni y a des euh, coups de gueule partout y a des euh, euh problèmes et des sorties partout pour dire que ni affaire bi arrangé wu leen leur chiffre d'affaires a baissé et tout ça de l'autre côté am na ñoo xam ne leen di arranger parce que au moins ils vont s'assurer que ni les marchés ne vont plus déborder de monde et que organiser nañ ko entre guillemets parce que am na ñoo xamante ni buñ ne leen trois jours lañ leen may dinañ bousculer wu ci marché bi pour pouvoir s'approvisionner donc moi je me dis que euh, instant bi nii le seul hic bi nga xamante ni gis nañ ko ci discours bi moi en tout cas je trouve que mooy mesures yi nga xamante ni assouplir nañ ko ci instant bi nga xam ne cas yi mi ngi gën a yokk ça je pense qu'on n'en disconvient pas cas yi ñu ngi gën a yokk instant bi nga xamante ni ñu ngi jël discours euh, ñu ngi jël mesures yi assouplir leen tey par exemple ce euh, lundi ñi ngi gis que ni mille non cent soixante-dix-sept cas loo xamante ni mësuñu ko am musuñu am cas yu toll noonu par jour 177 cas par jour si si si si tey journée tey bi ce qui est vraiment euh, bon je je vais pas employer de gros mots mais pour, pour pour ne pas faire peur c'est assez catastrophique parce que Sénégal dem ba franchir ay 1100 et quelques personnes yoo xamante ni actuellement ils se trouvent au niveau des hôpitaux là je pense que doy na nag ñu toog xoolaat ce qui est vraiment nag inquiétant mooy que ni. et le même jour là bi nga xamante ni Marie Khemesse Ngom mi ngi doon def conférence de presse wax que ni la situation elle est grave bon d'après ses propos et surtout le ton qu'elle a employé aujourd'hui ça nous fait comprendre seulement que ni la situation elle est vraiment grave et inquiétante et c'est le même jour que le président Macky Sall a pris la décision d'alléger les mesures d'assouplir certaines mesures dafay xaw a am un peu contradiction il faut qu'on le dise parce qu'on va analyser la chose euh, de manière euh, très euh, peut-être logique et euh, concrète quoi ñu bañ ko defee de manière superficielle jour bi nga xam ni tey ci suba lañ doon wax waxu cas yi dafa bëri enregistré nañ 177 un nombre de cas record en moins de 24 heures en 24 heures je dirais c'est le même jour le soir que l'on nous dit euh, que l'on va euh, assouplir les mesures. Alors, ça va poser problème parce que, comme le président Macky Sall l'a dit, euh, nous allons apprendre à s'adapter et à vivre avec le virus. Bon, moi je me dis que vivre avec le virus, ce n'est pas comme peut-être ce que, comme euh, certains l'entendent, mooy que ni dem leen euh, on vous laisse avec euh, avec euh, vous-même quoi non man gisee ma ko foofu man li ma gis mooy que ni quand on vous dit qu'on qu'on va devoir s'adapter et vivre avec le virus mooy que ni dafa jot ñu xool virus bi lan la bëgg lan la bañ parce que quand on apprend à vivre avec une personne c'est parce qu'on veut savoir qu'on doit savoir ce que cette personne-là, et surtout quand il s'agit d'un ennemi, et surtout d'un ennemi invisible. Donc dans ce cas, il faut que l'on sache ce que cet ennemi-là veut et ce qu'il ne veut pas pour pouvoir vivre avec lui. C'est le cas, bon, c'est une explication assez simple que je donne à ce propos wala assertion bi nga xam ni le chef de l'État l'a l'a tenue. Donc on va devoir dans ce cas, on est censé désormais de savoir ce que le virus veut et ce qu'il ne veut pas lan la adapté wu lan la nekk lan moo convenable ak moom ñu def ko donc ce qui veut dire que instant bi nous sommes notre propre euh, je dirais euh, président nous sommes notre propre euh, force de l'ordre nous sommes notre propre en tout cas ñun ñun ñoo suñu ay suñu destin si si la nekk Voilà, nous avons notre destin se trouve entre nos mains donc je pense que instant bi képp ki nga xamante ni rek déglu nga discours Macky Sall bi dis-toi que ni sa destin si yow la des. malheureusement ñi ngi ñuy déconfiné entre guillemets ci instant bi nga xamante ni virus bi mi ngi gën a yéeg atteindre guñu pic bi nous sommes ñi ngi ñi ngi projeté wu ci benn semaine boo xam ne sa va et beaucoup plus dense. et malheureusement ci semaine boobu lañ ñu bàyyi ñu génn c'est assez paradoxal mais bon voilà c'est ce qu'il en est et donc on va devoir euh, euh, s'adapter comme euh, nous l'a dit le, président alors su demee noonu moi je me dis que il faut aussi comprendre que ni Euh, certaines mesures su amee rek il faut que ku nekk jël ay responsabilités comme je l'ai dit tout à l'heure il faut que ku nekk ku ci nekk jël ay responsabilités am xam ni maintenant euh, on vit avec comme ni ñu ko waxee on vit avec donc ku ci nekk na xam ni encore une fois ñun ñoo mën a xeex ak virus bi notre avenir et notre destin nous appartient désormais face à cette situation. autre chose bu may souligner ci euh, discours bi mooy dafa dafa xaw a discours bi dafa xaw a tënku c'est-à-dire entre hier et aujourd'hui gis ngeen que ni. Euh, mën nañ fi changer sax de de de de de de kii c'est-à-dire entre hier vous avez vu que ni discours dafa xaw a parce que y a des yoo xam ne démb la ko nit ñi jot avant sax tey donc ce qui veut dire que euh, entre hier et aujourd'hui ñu si bëri changé nañ avis pourquoi parce que cas bi am ci suba si parce que ne pensait pas que dinañ yeewu ñu ñuy wax cent 177 cas alors loolu su amee ñu génn ñu ne affaire de économie parce bu bu ñuy déconfiné waruñu def suñu idée que ni c'est parce qu'on est fatigué de rester chez nous wala c'est parce que voilà euh, sonn nañ et tout ça waruñu ko jëlee ci côté boobu on doit tout simplement analyser ci angle bi nga xamante ni peut-être moom la président Macky Sall soulevé ce qui est quand même très aussi euh, dafa xaw a metti dur à accepter mooy économique dafa mel ni kon instant bi c'est l'économie qui a qui, qui vient de dicter sa, sa loi en quelque sorte économie moom moo ñëw fekk ñu en pleine guerre pour nous pour nous désarmer pour euh, voilà ñu ñu xool leneen lu ñuy def parce que nous sommes euh, ñu ngi woon en pleine guerre bon <laughs> comme du ko euh, président de la république waxee woon nous sommes en guerre mais malheureusement suñu ay armes ensemble ñu ngi mel ni ku nekk armistice et pourtant on était en pleine guerre donc bu nekkee dañu ñëw fekk ñu ak loolu et aussitôt après ñu ne voilà euh, on essaie de baisser les armes on essaie de voir beneen tactique bu ñu utiliser parce que l'économie risque de s'effondrer wala l'économie risque de sou de de de souffrir de souffrir wala de euh, subir euh, yenn conséquences yu désastreuses yi alors là on va dire que ni c'est l'économie bien évidemment qui a dicté sa loi et qui nous, qui demande peut-être d'arrêter la guerre et de poser les armes. Malheureusement, parce que loolu la ñu jox comme explication d'après le discours d'après le discours nee na waxtaan na si ak ay experts euh, des experts euh, plurisectoriels si je peux l'appeler ainsi c'est-à-dire de secteur bu nekk xool nañu mu ciy waxtaanal pour mën a wax ne virus bi dina circuler entre août ba septembre donc mënuñu toog parce que suñu économie day risque subir coup bas alors donc c'est toujours l'économie c'est l'économie et peut-être benn facteur boo xamante ne euh, facteur jeu dirais que ne société bi la pression wu économie bi pression wu société bi moom moo primé ci santé c'est la pression sociale en quelque sorte si je peux l'appeler ainsi en tout cas ak li nga xamante ni moom moo di euh, pression économie bi moom moo ñëw instant bi nii euh, teg pression suñu euh, le secteur sanitaire parce que santé moom xamul xamul dara moom santé xoolul économie santé lu mu xam mooy santé la priorité c'est-à-dire la santé c'est la santé wér la xam donc si on n'est pas Euh, nekkuñu ci phase boo xamante ni courbe bi mi ngi mi ngi nekk phase bu descendante descendante alors là ñu nekk ci toujours ci phase ascendante bi teewul ñu ngi wax que ni dañuy dañuy dañuy reprendre la vie normale comme avant alors là ça craint yi mënuñu ñëw jël wax mesures yëpp que ni baaxul noonu mais quand il y avait il y a am na yenn mesures yoo xamante ni on aurait pu les revoir comme par exemple la reprise des écoles des des des cours c'est mon avis personnel et mon an mon analyse personnelle école certes on ne veut pas d'année blanche kenn soxlawul année blanche kenn kenn kenn soxlawul année blanche mais il faut savoir une chose école du priorité face à la santé qu'on le veuille ou non lekkool ne pas prioritaire face à la santé te bu ñu nekkee dañu yóbbu xale yi ñu jàngi ci période boo xamante ni affaire bi nekkagul niveau bu baas bi c'est-à-dire nekkaguñu si j'utilise un terme les à terre pour que ñëpp mën comprendre eggaguñu si phase bi nga xamante ne ñi ngi naan courbe bi mi ngi wàcc wala cas yi ñi ngi wàcc comme par exemple ce qui se passe ailleurs et je je vais en revenir je vais en venir tout de suite là pour ñu xaw a def éviter de faire des comparaisons on est au Sénégal nous ne sommes pas en Europe ou bien nous ne sommes même pas euh, le Sénégal c'est le Sénégal c'est que virus bi dafa am ku nekk ak ay réalité même si on est en Afrique alors eggaguñu foofu ñu bëgg a yóbbu xale yi le 2 juin est-ce que xam nañ ce qui va se passer le juin nous ne le savons pas kenn xamul 2 juin lan mooy am donc qu'est-ce qui va prendre le risque de laisser prendre le chemin de l'école les enfants même si que naan ay porteurs les enfants sont des porteurs sains bu nekkee ñu bëri euh, analystes euh, les spécialistes euh, yu féete affaires scientifiques et sanitaires tout ça là ils ont prouvé que ni les enfants ce sont des porteurs sains c'est-à-dire mën nañ am virus bi te duñ ko xam wala du leen defal du leen def yenn symptômes yu graves yi donc ñooñu même s'ils sont des porteurs sains ils sont source de ils sont source de contamination mën nañ ñëw contaminer ba pare xale bu nekkoon ku ñu mën a canaliser mais xale dafa am aussi ay euh, ay c'est-à-dire ay liiwam ay caractéristiques am nekkul mag nekkul koo xamante ni dina xalaat xale lu ko neex la xam ak aussi il est innocent donc innocence boobu noonu àndul ak virus bi nga virus bi bu xamul loolu on doit savoir que nous sommes en face d'un ennemi non seulement invisible, mais aussi d'un ennemi qui a ses lois et qui dicte ses règles et règlements. Donc, bu ñu bàyyi xale yi dem les parents sont exposés les parents sont exposés parce que ñu ngi ci biir kër yi mais également euh, xale yi ñooy dem di ñëw ce qui se passe en France la France a assoupli les mesures ubbi seen lieu yenn lieu de culture yi déconfiné euh, reprendre cours yenn cours yi mais loolu on peut pas le on peut pas l'adapter toutes ces mesures là def ko euh, fii Sénégal c'est impossible c'est ce que je veux dire mooy que ni crise bi ku ci nekk da nga war a am sa mesure bopp ce que je peux peut-être appeler des des des des mesures peut-être que sur mesure sur mesure ku si nekk xool li nga xamante ni sa réalité moom la am sa réalité dëkk lii la nga jël genre mesure boobu nga adapté ko c'est ça en fait on on on doit absolument pas comparer des choses c'est comme si on disait que ni euh, France euh, li muy guérir ci ay li muy guérir par jour Sénégal du ko guérir par jour France mi ngi guérir ay mille euh, patients par jour Sénégal mi ngi guérir ay 6 patients 7 mais c'est pas la même chose la population n'est pas pareille, le nombre de cas n'est pas pareil. C'est incomparable. Il faut toujours, il faut éviter pour, pour Chris Bini. Moi, je pense qu'il faut absolument éviter de faire des comparaisons. Mais apprenons. Apprenons des autres, mais ne copions pas. il faut que l'on apprenne des autres et apprendre, c'est peut-être xool li nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def wala lan la leen virus bi indil apprendre le virus euh, l'évolution du virus là-bas ailleurs lan la fa def comme dégâts peut-être on apprend de ces erreurs-là on apprend de ces aboutissements ou bien des couacs et autres choses pour en tirer leçon mais ne comparons pas du tout comparaison n'est pas du tout raison Sénégal dañu am suñu ay réalité France dafa am ay réalité ñun fii France mun nañu confiner mun nañu euh, yóbbu seen xale yi école mais dañ leen di jëlal mën nañ bañ a jël transport en commun fii xale yi bu ñu demee ñun transport en commun lañ leen di jox ñu dugg ci car rapide yi dugg ci bus yi bousculé wu rassemblement boobu kan moo ko mën a gérer qu'est-ce qui peut dire que ni sama euh, élèves euh, ces cent cent milliers d'élèves là qui vont reprendre les cours vont tous tous tous tous prendre des des des, des transports yoo xamante ne peut-être euh, privé la transport en commun la ñuy dem jël la majorité la majorité va prendre euh, les transports en commun que mu nekk bus wala clando wala mu nekk euh, autre chose qu'est-ce qui peut gérer ça personne dañu nekk ci phase boo xamante ni man dama ne lu ñu waroon njëkkee lañu ñu mujjee instant bii nii même si que ñu bëri ñu ngi déconfiné si je prends Euh, l'exemple ñu ngi wàññi seen heure de couvre-feu yi assouplir mais bokkul moritani bi ñu gën a jege su wàññee euh, ay mesuram am c'est pas parce que Mauritanie wàññi na ñun dañu war a wàññi bokkuñu cas yi bokkul Mauritanie ñi ngi ci seen ay huit ñun ñi ngi ci ay mille teg si on enregistre des centaines maintenant de cas par jour alors là la comparaison n'a absolument pas sa place ici bu ñu di comparer France dañu am seen ay réalité bopp qui va certainement s'adapter à ces mesures nous Sénégalais nous avons nos propres réalités donc à adapter avec des mesures des surmesures autre chose mooy euh, maladie lu nekk ci hôpitaux yi est-ce que vous savez que maintenant les hôpitaux sont débordés saturés on n'ose pas le dire ou bien euh, <laughs> certains de nos autorités n'osent pas le dire mais les autori les, les hôpitaux sont saturés que mu nekk Dakar que mu nekk Diourbel que mu nekk Louga que mu nekk feneen les autorités capacité bu ñu waroon mën a am pour accueillir les hôpitaux n'ont plus cette capacité là il faut qu'on qu'on le dise mënatuñ ko et une chose euh, ñàkk capacité boobu est-ce que vous savez que ça mène maintenant à une technique boo xamante ne ça se passe un peu partout mais peut-être euh, mënuñu wax lépp des gens qui ont qui ont qui ont qui ont chopé le virus ñi ngi seen kër yi toog tout simplement parce qu'ils n'ont pas de place à l'hôpital ils ne peuvent pas euh, euh prendre des traitements hors des, hors des structures sanitaires. Ils ne peuvent pas les prendre parce que est-ce que amagum nañ aval boobu pour mën a prendre traitement yi mu nekk chloroquine mu nekk azithromycine euh, tout tout tout ce bloc là hors des structures sanitaires on ne peut on peut pas savoir mais des gens qui ont recours à des euh, prises de température médecins yi dañuy ñëw seen kër pour en fait ce sont des choses qui se passent en dessous et qu'on n'ose pas et qu'on doit dire mais euh, peut-être euh, ñi ko war a wax duñ ko wax il faut qu'on le dise faut qu'on dit euh, dise aux populations aux Sénégalais ce qui se passe pour moi c'est la meilleure des sensibilisations dire la vérité aux gens il faut dire la vérité aux gens c'est comme ça et c'est par cette idée-là qu'ils vont être conscients qu'ils vont croire à cette maladie parce que lu ñuy jàppee affaire de di di ko wax euh, à moitié wala di nëbb yenn yi di def ay rétention loolu mooy tax les sénégalais n'arrivent toujours pas à croire que ni virus bi mi ngi Sénégal malheureusement et c'est vraiment malheureux d'en arriver là parce que crise dafa am ay réalités je le dis et je ne cesserai jamais de le dire il faut que l'on dise ce qui se passe ici au Sénégal les hôpitaux sont saturés ay confinement hôtel ce qui ne devrait absolument pas avoir lieu les gens sont confinés dans des hôtels ce sont les patrons là qui vont avoir qui qui, qui en bénéficieront mais xaalis boobu Sénégal dafa am xaalisu benn nit boo xamante ni il est contaminé ak contact des centaines de contacts 200 250 contacts 500 300 ñooñu fan lañ leen di dugal dañ leen di confiner ci ay école ci ay hôtel plutôt on peut pas tous les confiner là-bas c'est impossible parce que confinement euh, euh isolement nekkul ak peut-être euh, mun dafa ay réalité en fait mun nañu la isoler ba pare boole la ñaari nit une personne par chambre une personne par pièce est-ce que le Sénégal peut gérer ça sur le plan financier impossible su nekkoon nag euh, ailleurs comme on aime euh, comparer ce qui n'est pas comparable ce qui veut dire qu'il faut il faut que l'on dise les gens ce lan moo xew de ce fait ku nekk jël sa ay xam nooy jëlee sa ay précautions supposons à, à l'extérieur par exemple aux États-Unis wala yu demee noonu des gens qui ont qui n'ont pas de symptômes c'est-à-dire les asymptomatiques les porteurs sains eux ñoom dañuy toog seen kër la plupart dañuy toog seen kër confiné seen bopp isolé wu xam ni feebar bi mu ngi si ñoom mais ils vont appliquer quelques directives et quelques conseils de médecins peut-être jusqu'à ce qu'ils se euh, soit se soignent wala ñuy am symptôme di toll ci benn état boo xamante ni mën nañ dem euh, Italie mën nañ dem euh, hôpital ce qui se passe en Italie ce qui se passe quelque part aux États-Unis et en France et un peu partout parce que lieu wu confinement mënuñu l'autre jour ñu ngi gis que ne dañu aménager centre Guéréo euh, def ko lieu de lieu de d'isolation mais foofu tôt ou tard dafay fees et le ministre aussi n'avait pas besoin de faire euh, toute cette opération de charme la xawma euh, publicité xawma je sais pas euh, waruñu ko woon photo di dugal comme si que di wane fauteuil yi fii di wane les toilettes di wane les euh, la cuisine comme si c'était on, on, on, on nous charmait, voilà, c'était une opération de charme, voilà, marketing. C'est pas comme ça. C'est comme si vous, vous pousser Nietzsche pour les noirs, venez, parce que là, euh, c'est c'est le luxe, quoi. nekkuñu si foofu ci ci stade boobu affaire bi c'est sérieux c'est une affaire boo xamante ni on n'a pas on n'a pas besoin de faire tout toute cette opération de charme là mais Sénégal fii ku fi nekk porteur sain pourquoi duñ la man isolé ci ay euh, ci ci ci ci nga toog sa kër tout simplement parce que fii les gens ils vivent en famille da ngay nekk famille boo xamante ni day nekk euh, sept à dix personnes ou bien même plus foofu pour denc fa nit pour wax nit ki toogal nga bañ a génn loolu euh, mënul lekk Ce qui veut dire que tout le temps, il faut essayer d'apprendre chez les autres, mais ne pas les copier. Ne pas les copier ni si c'est une forme de communication, ni si c'est une euh, gestion de crise. Il faut toujours relativiser et essayer de voir comment adapter la situation, adapter la gestion par rapport à, à, à, à réalité. C'est très important. Parce que ce qui se passe ailleurs ne se passe pas ici. Donc moi, je trouve que malheureusement, on a assoupli les mesures. Euh, il euh, y, a, y, a quand même certaines mesures à saluer. On ne peut pas tous euh, def ben genre au table rase ou def ben de minimiser qui parce que euh, le chimel euh, rapatriement des, des de Sénégalais de l'extérieur, ça, je pense que nous pouvons ànd nañ si parce que lu mu munti mel euh, lii wu défense c'est-à-dire volonté famille bi c'est très important aussi à respecter ku si nekk yaa xam lan lan nga jublu ci loolu dañ ko nangul ñëpp yàggoon nañ ko soxla euh, président bi répondre na ci seen faveur boobu donc je pense que c'est quelque chose quand même à saluer comme mesure l'ouverture des mosquées euh, aussi après li nga xam ni def nañ ko ci ay pression nit ci wax nañ si ba sonn et tout ça donc euh, lu ma doon commencé rek laay laay waxaat mesure bi ku ci nekk pour man euh, danga koy jàngatee ci sa ci sa lieu personnel ci sa angle personnel ci sa ci sa ay activité wala yow sa point de vue ak lu la arrangé mënul am unanimité c'est impossible c'est impossible donc bu nekkee loolu yëpp am na on a assoupli les mesures ci instant bi nga xamante ni atteindre guñu sax pic bi alors la le, le seul défi actuellement le seul et unique défi actuellement mooy l'organisation et les mesures d'accompagnement il faut qu'on s'organise il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement jàkka yi ubbi nañ ko d'accord c'est c'est très très en tout cas moi je je je salue l'idée mais suñ ko tijjee te amul mesure d'accompagnement te amul organisation le pire risque d'arriver dañ ko organiser loolu nag mooy instant bi li nga xam ne mooy gën a poser problème parce que ku xam mentalité sénégalais parfois tu vois des gens euh, ils ne respectent rien da nga leen di xool sax t'as comme l'impression que nekkoo ci état d'urgence nekkoo ci crise nekkoo ci coronavirus ni rien du tout parfois c'est c'est c'est difficile ça te rassure pas en fait donc moi je me dis que quand bu nekkee secteur bu ci nekk ñu doon laaj pour ñu alléger leen mesures yi pour qu'on puisse assouplir tout ça et euh, aider l'économie peut-être à souffler un peu dañu war a xool aussi euh, volonté boobu président Macky Sall jox leen il faut qu'on le mérite et il faut qu'on la préserve en quoi faisant en s'organisant parce que li jàngal daf ñu jàngal lu bëri cette crise là nous a tellement appris et ku ci nekk rek war nga xool sa côté ban partition nga ci mën a apporter pour que lépp mën a tranquille lépp mën a baax lépp mën a euh, même si que euh, c'est c'est assez précaire instant bi nga xamante ni euh, ñu ngi waaj a ñu ngi ñu ngi nekk ci phase 2 bi c'est c'est assez précaire avec les 1000 cas et tout ça mais daal nañ organiser wu pour les pour les mosquées je pense que même communiqué bi nga xamante ni ñoom defoon nañ ko association imam yi ils ont même énuméré ces points là nga xam ne dinañ ko respecter comme quoi teg ay def ay implanté foofu noonu ay euh, peut-être fu ñuy raxasoo et tout ça pour qu'on puisse euh, voilà mën a euh, julli respecter distanciation sociale bi et tout marché yi aussi pareil loolu lañu war a gën a bàyyi xel gën a bàyyi xel ci loolu parce que bu ñu sentir ni dañu sonn moo tax ñu bàyyi ñu ñu génn mais nañ xam nañ xam ne le virus est encore là et nous sommes tous de potentielles victimes nous le sommes tous kenn xamul mën na la dal mën na dal kii mën na dal keneen nous sommes tous de potentielles victimes alors ku ci nekk na nekk responsable mature xam ne instant bi la seule personne wala voilà, le seul président nous sommes notre propre président ñun ñoo mën a yar suñu bopp ñun ñoo mën a jox suñu bopp ay règle ak ñoom seen donc à part ça euh, voilà ñu ñu passer ci beneen point bi avant may passer ci point bi je vais juste prendre trois trois trois trois questions pour mën a passer ci ci beneen point parce que j'avais décidé de qu'on que l'on fasse ensemble la décryptage suñu paree wax ci euh, c'était quoi encore wax ci euh, nouvelle stratégie et surtout évaluer état d'urgence puis voilà problème c'est qu'on est plate qu'on ne planifie pas quand tu regardes les télévisions européennes c'est des médecins et des professeurs qui viennent expliquer la maladie ça c'est c'est c'est c'est important au c'est soit des politiciens ou des journalistes. Donc les journalistes n'ont pas leur mot à dire. Ah ouais, ça je savais pas. Alors pour bu ñuy wax affaire gestion crise bi vision parfaite du paradoxe il faut le dire hein que assouplissement bi baax na wala baaxul il faut avouer et admettre qu'il y a un paradoxe on peut pas on ne peut pas annoncer ce matin cas un nombre record de cas enregistrés en 24 heures et venir dire le soir qu'on assouplit les mesures paradoxe moi je m'attendais plutôt ak bi mu amee décalage ñu waroon ko def mardi mu def ko mu def ko lundi Moi, je pensais qu'il y avait euh, un retournement de situation, genre ben, euh, une décision de dernière minute et tout ça. Mais bon, là, Ibrahim Sarr, je ne suis en contact avec personne. Moi, je ne porte pas de masque. Je suis chez moi. Moi, euh, il faut quand même avouer que amna paradoxe, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire que amna paradoxe. ci mesure yi kii bi ñu jël mesure bi ñu jël ce matin euh, li ñu avoué ce matin que la situation elle est grave ak mesure yi ñu jël am na am na yu waroo voilà comme ni ñu koy waxee mais quelle est la différence entre vingt heures et vingt et heures si le couvre-feu si couvre-feu bi au moins vingt deux heures sax Euh, gis nga bu ñuy ñëw si affaire évaluation euh, état d'urgence bi dañuy njëkkee ci couvre-feu bi moi je vous affirme le couvre-feu n'a absolument rien servi rien rien du tout sinon quintupler les cas euh, tripler euh, drainer des morts et trucs sincèrement je je je ne vois pas il n'y a aucun intérêt couvre-feu bi amul lu mu indil. sinon bousculer ñi nga xam ne dañu waroon lu ñu waroon def guddi bi ñëpp def ko se bousculer pour faire ça le matin loolu de laa fi gis ci couvre-feu bi mais sincèrement couvre-feu bi ku gis ne am na lu mu apporter de bien na ma wax avant le couvre-feu le Sénégal a enregistré 52 cas avant le couvre-feu c'était le 23 entre le 2 et le mars entre le 24 et le on a eu combien de cas nous, sommes, nous tendons vers les 2000. et 1000 et quelques euh, patients au niveau des hôpitaux. 19 morts. lan la couvre-feu bi jëriñ absolument rien pour man couvre-feu bi amul sens loolu laay waxaat rek il faut qu'on s'adapte nañ xool lu adapté wu ak suñu ay réalité ñu koy def Sénégal fii boo fi waxee couvre-feu couvre-feu diggante vingt et une heures ak cinq heures du matin qu'est-ce que cela va servir non mais dites-moi il faut ferme les, les publique les places publiques les boîtes de nuit fermer les trucs d'accord et laisser les gens parce que lu ñu deful si guddi bi doxi ko boutiquier yi nekk ci koñ bi nañ leen bàyyi ñu liggéey parce que ils sont en train de de de perdre de l'argent pour rien en fait pour rien du tout couvre-feu diggante 22 heures ak 21 euh, heures ak cinq heures du matin loolu ñan yan activité ngay xañ yan activité ngay ngay mettre ngay ngay arrêté yan activité kuy jaay boutiquier jaaykatu cere bi jaaykatu peut-être ay reer et tout ça et pourtant les restaurants son ouverts vont, vont être ouverts dès demain nga ni da ngay tijji écoles yi et est-ce que vous savez que l'ouverture des écoles et l'ouverture des euh, la la comment dire l'autorisation de déplacement entre régions ça euh, ça va de pair ñaar yooyu noonu ils von de pair kenn mënul dem bàyyi parce que ñi nga xamante ni am na ñoo xamante ni ñi ngi ci région yi il faut il faut que ñu rallier dakaar pour pouvoir dellu si kenn xamul fooy jógee kuy jàngi kay xam bu ko wax ni yow fii ngay jóge walla waroo jóge fii kuy jàngi dafay jàngi mën na jóge sax Thiès di ñëw di jàngi ci Dakar on sait pas couvre-feu bi waay waay sang kan couvre-feu xanaa xiif la fi andi waaye <laughs> malheureusement. C'est l'ironie du sort. En tout cas, moi, je ne vois pas, je ne vois pas l'intérêt du couvre-feu. Très sincèrement, man gisuma fi intérêt couvre-feu. gisuma intérêt bi. Sénégal nag euh, malheureusement lu ñu waroon njëkkee nga xam ni heure bii day fekk ñuy wax génn leen njëkkee ko malheureusement et dire qu'on en état d'urgence état d'urgence àndul ak ay je je le dis tout le temps xam je l'ai assez répété et tellement répété mais état d'urgence àndul ak demi-mesure il faut des mesures drastiques réactives en plus il faut être réactif en état d'urgence mais état d'urgence boo xam ne limite c'est état d'escargot <laughs> on ne sait même pas euh, yan yan mesure yu lan moo fi en fait lan les gens sont là sur internet dire lii la ñu war a def lii à la place de ces gens heure bi mesure yi la ñu waroon le temps du début bi on disait confiner Dakar confiné Dakar mais jusque là rien n'est fait et au moment où on est toujours dans la phase ascendante on assouplit on nous désarme l'armistice avec le virus notre ennemi numéro ku si yaboo xam ne ce destin mi ngi entre tes mains soyons responsables de par nos attitudes soyons responsables de par nos notre mentalité surtout ça c'est important ku ci nekk xam ne li ngay def nii defoo ko yow kese mais yaa ngi koy def sa moroom parce que ku génn takkoo masque keneen takk masque kooku yaa ngi yaa mettre en danger ñeneen ñi ngay parce que ki takk masque sax yow mi takkul masque moom mu takk masque taxul euh, risques yi arrêté y a des donc noonu lañ war a procéder xam que ni ku ci nekk li ngay def yaa ngi koy def mais yaa ngi koy def sa moroom c'est instant bi nii civisme ak patriotisme kese kese kese moo ñu mën a aider à surmonter et à subir cette épreuve et passer civisme patriotisme discipline discipline et encore une fois civisme boobu patriotisme bi discipline bi ak euh, engagement bi tout ça aussi ça peut dépendre du ministère et de sa communication <laughs> je ne réponds pas à la provocation Bambaka civisme beeg loolu yëpp ça peut dépendre aussi de la communication du ministère ministère de la santé encore une fois nañu def communication bu exhaustive jàppale nit yi jàppale population bi jàppale journalistes yi jàppale seen bopp également. parce que défaillance bi am ci communication dina tax te yokk septi scepticisme bi c'est-à-dire ces gens-là qui se disent euh, coronavirus amul. mais c'est bu ñu amoon benn communication boo xamante ni c'est exhaustive et complète. du ñu fi nekk di wax coronavirus am na wala amul hier quand j'avais posté euh, la vidéo de euh, de John Magufuli mu doon wax que ni y a des faux tests <laughs> mais il y a des gens qui disaient que il faut pas poster n'importe quoi parce que oui et, et voilà parce que président africain les gens le prenaient pour un fou ils l'ont pris pour un fou et pourtant le lendemain Euh, euh, comment dire Interpol Interpol confirme ses dires maintenant on le croit parce que ça vient d'Interpol et si ça vient d'un Africain si on fout si ça vient d'Interpol ou bien si vient des Occidentaux c'est normal c'est quelque chose de bien c'est vraiment malheureux qu'on en arrive là c'est vraiment malheureux fii waroon am solidarité euh, xam ni euh, crise bi ku si nekk yaa war a gérer sa bopp continent yi gérer seen bopp pays yi ku ne gérer sa bopp bañ a am ay bàyyi di céder ay pression occidentale qui viennent de de de n'importe quoi et n'importe où le président tanzanien quand il a dit que waaw am na li nga xamante ni moi j'ai même essayé de faire la traduction en français euh, la vidéo je l'ai supprimée tout simplement parce que euh, c'est suite à la demande de euh, voilà d'un mentor je veux dire que je je pour mënuma ko woon refuser lool donc j'ai j'ai supprimé mais xam nga j'ai même j'avais même pas supprimé la publication la publication toujours là mais la vidéo j'avais pris mon temps à faire la traduction parce que j'avais jugé nécessaire de faire la traduction de la vidéo tellement son discours était hyper mais nit yi gisuñu loolu de ñu ngi gis ni peut-être da ngay yàq travail ministère de la santé et pourtant ce même ministère là le lendemain matin moom moo ñëw approuvé li mu doon wax peut-être d'une autre manière mais il a approuvé carrément li nga xamante ni moom le président tanzanien bi di wax alors ça vient d'Interpol donc c'est c'est avéré ça vient d'Interpol c'est avéré ça vient de l'Afrique c'est faux kañ dañuy arrêter genre mentalité yooyu noonu beaucoup de gens disaient que non lii ça peut céder la nag la non parce que waruñu ko wax lii dafay yàq dafay dafay yàq communication ministère dafay yàq travail ministère oh mon Dieu ministère bu liggéeyee bu baax kenn du gis ku wàkk wala kenn du dem di uti ji ay information particuli euh, particulière wala ay information complémentaire euh, yoo xamante ni c'est terre à terre ce qui se passe en Tanzanie dites-vous que ça peut se passer ici au Sénégal ce qui nous différencie c'est que dafa am peut-être président boo xamante ni il est très avant-gardiste il est très vigilant et ne cède pas aux pressions des Occidentaux peut-être nous on ne l'a pas dañuy xaar tubaab yi wax ñu pour ñu ne d'accord c'est vrai et pourquoi ne pas faire des enquêtes le milliardaire euh, chinois Jack Ma Jack Ma nous a donné offert un don de milliards d'un milliard je pense ci ay euh, c'était en c'était vers le 28 29 mars si je me trompe en tout cas côté boobu la 27 28 mars si la ñu joxoon don don boo xamante ni ay kits sanitaires la ay équipement mais kan moo ñu wax que ni don yooyu noonu les kits sanitaires là euh, bokk ci kits sanitaires yi ñuy wax que ni c'est faux qu'est-ce qui di dit que ni don yooyu bokk ci parce que vigilance bi nga xamante ne euh, président euh, tanzanien bi am na ko peut-être nekkul euh, nekkul ci ci ñeneen peut-être nekkul ci ñeneen donc il faut être patriote c'est de ça qu'on a besoin bu ñu demee bay ñee yeneen président yi wala di wax lii la ñu soxla ci président c'est parce que peut-être li ñu soxla à 100 pour cent ci suñu président il faut qu'on le dise amuñu ko il faut appeler le chat par son nom. On doit redoubler d'efforts, revoir notre manière d'agir et apprendre à dire la vérité aux gens. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. que mu nekk citoyen bi war na apprendre à dire la vérité que mu nekk dirigeant bi et ainsi de suite ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à se à ne pas se voiler la face se dire la vérité feebar bi kaful fowul ces gens-là qui sont là euh, euh, di di di di di reprendre seen activité mais Italie jékki-jékkiwul rek def déconfinement parce que dafa sonn non non non non parce que dafa atteindre pic et quand on atteint un pic quand on atteint le pic la courbe devient descendante cours bi bu wàccee cas yi wàcc nombre de décès wàcc là on peut déconfiner parce que les gens voilà au moins ils sont matures en plus les mesures euh, jël nañ ko gis nañ que ni immunité bi fii la tool et tout ça il y beaucoup de paramètres yoo xam da koy tenir en compte mais xëyu ñu xëy rek ne non dañu sonn économiquement on peut plus quand l'économie vient euh, s'invite euh, dans des trucs sanitaires moom sincèrement ci crise sanitaire on cède dañuy céder parce que mënuñu la mënuñu la wax leneen c'est-à-dire c'est c'est assez euh, quelque chose qui te daf lay tënk si je peux le dire ainsi c'est quelque chose qui vient et puis voilà du la may foo jàllee du la may benn issue de justification parce qu'on te parle d'économie et du moment où le président dit que xaw na am na ñu mu si waxtaanal alors là mënatuñ si dara on va dire que ce sont des euh, c'est l'avis des euh, venus d'experts euh, qui vont qui ont peut-être certainement dit que économie bi mënul mënul mënul mënul souffler mënul jëlaat euh, bon sans pour autant ñu ñu delluwaat suñu activité donc foofu c'est euh, la crise sanitaire ak euh, des menu duel entre crise sanitaire ak économie doo xam doo donc bu ñu ñëwee di wax waxu économie rek alors là on cède on cède carrément alors euh, je vais prendre quelques questions pour euh, ne pas trop durer si <laughs> ce n'est déjà fait il est 22 quelques questions maa ngi si suuf nag les les tout premier commentaires malheureusement duma ko mën liir parce que maa ngi carrément ci suuf donc ceux qui peuvent peuvent reposer leurs questions pour que je puisse les recueillir et les lire et répondre si je peux s'il y des informations qu'on me demande je vais répondre ci yi nga xam ni xam naa ko yu ma xamul xamuma ko Astou Dione du joxe info bu mu xamul man du ma ko joxe faut jamais attendre ça de moi <laughs> voilà <laughs> Avec notre milieu dont il y a un manquement de réseau, de courant, oh ça m'échappe, de courant dont même suivre en direct c'est un problème, comment peut-on regarder la télé pour avoir de cours Oui, ce sont des paramètres euh, à tenir en compte. mais mais am na loo xam ne bëggoon naa ko surtout si souligner mooy gestion Covid COVID-19 bi kii bi suivi bi comité de suivi parce que vous avez vu que am na ay vague de bon je vais pas dire vague de démission parce qu'il y a une seule personne qui a démissionné muy Habib Sy euh, donc euh, malheureusement c'est cette histoire là euh, est vraiment déplorable bu nekkee noonu la demee en tout cas c'est déplorable pour des affaires pour une histoire de perdium pour une histoire de perdium jox ku nekk ay environ 3 millions pour neexal leen si je peux le dire ainsi parce que loolu la en fait neexal la ñu ngi la dénk loo xam ne pour nga suivre ko il y a des volontaires s'il y des gens qui réclament des per diem dites-vous que ci côté ci bi de l'autre côté il y des volontaires des gens qui sont prêts à donner corps et âme juste pour suivre loolu et de manière très objective et dire qu'il y a de côté des gens qui se chamaillent pour, euh, pour une histoire de, de perdium. Perdium, nga xamante ni boo koy joxe sax ci temps normal sax dañ la war a xoolaat waxuma laa nga koy joxe ci ay temps de crise ba mu jaral la nit ba nit sax di si démissionner. Hmm. Ce comité de suivi, dirigé par quelqu'un qui est très réputé, très rigoureux en plus. Pensez-vous pensez que ces mesures d'assouplissement peuvent avoir un résultat positif à long terme Tout dépendra de la manière dont on va euh, s'organiser. C'est comment encore Abdaraz The King. Je pense que tout dépend de la manière. moom laa doon wax tout à l'heure je sais pas si vous nous avez pris en cours ou pas mais wax naa si mm, assouplissement bi suñu bañee mu gën a indi catastrophe na ku nekk jël ay responsabilité xam ne moom moon avenir wu ñëpp mi ngi ci loxoom avenir wu tout une nation mu ngi ci loxoom bu nekk ku nekk jëlee noonu affaire bi rek je pense que dinañ ko dinañ ko gérer et normalement parce que nous parle de septembre on est en euh, mai juin juillet août septembre quatre mois ñu war a gérer crise fii ba quatre mois foofu il faut de la, de, de, discipline, patriotisme, responsabilité, engagement, volonté. Pour pouvoir euh, surpasser tout ça. Sinon, day gën a metti dina gën a metti sinon il y des morts des morts et des morts des victimes encore de cas des milliers nañu waxante affaire bi nu mu demee ñu xam parce que lii A moo fi nekk wala B lu ñuul wala lu weex kese moo fi nekk y a pas autre chose soit ñu respecter suñu bopp respecter geste barrière yi conscient que ni virus bi mi ngi fi di circuler soit ku nekk def lu la neex virus bi def lu ko neex c'est simple. Astou, que, je, que pensez-vous euh, de la situation des enseignants qui doivent retourner dans leur localité et aussi les cours à domicile euh, Malick Sey xam naa da nga da nga xaw ñëw en retard parce que je disais que ni la situation des enseignants moom laa doon wax que ni ouverture école yi reprise des cours bi ak ñi war a rallier déplacement région de région en région loolu dafay ànd mënuñu dem ça va kenn mënul dem bàyyi moom parce que am na ñoo xamante ni ci région yi li ñuy jugee ñëw di jàngale si wala si région yi li jugee di jàng yi wala voilà il faut que euh, déplacement boobu am donc euh, voilà je pense que foog foog ñu xoolaat côté boobu daal étudiants yëpp amuñu accès si internet ça aussi c'est sûr le discours reflète réellement la demande des Sénégalais si on veut coûte que coûte rapatrier nos morts si l'on veut aller prier, si l'on outrepasse les mesures, que faire ouais. C'est pourquoi, bon, il y en a qui, qui, qui disent que c'est une pression sociale, c'est une, c'est, c'est une pression face à une demande populaire, euh, ou la pression économique, euh, en tout cas, pression sanitaire, mon, à mon fait. Soit c'est l'économie qui presse, sur l'éducation, ce que je trouve pas évident, l'éducation ne, peut, ne presse pas du tout. Même si Ken Bougoul année blanche. Ken Bougoul également privé, il n'y a que problèmes, ou l'examen et tout ça. Mais l'éducation, face à une crise sanitaire, l'éducation ne, ne presse pas. Euh, Covid organique. L'État a proposé quoi bon pour le moment l'état état joxeegul joxeegul joxeegul décision finale joxeegul avalam l'état n'a pas donné d'aval pour le covid organique nag moi je me dis que su amee problème rek instant bii nii s'il y a des problèmes c'est tout simplement parce que euh, le président malgache n'a pas fait par exemple benn euh, une étude assez probante pour du, du point de vue des peut-être euh, scientifiques yi loolu kese man je trouve que euh, loolu bokk na ci li nga xamante ni euh, moo xaw a rendre un peu sceptique certaines certains dirigeants et tout ça mais bon du moment où lui il est il est vraiment rassuré et ça le rassure en plus il a avoué ce matin sur France 24 que 171 cas la am et 101 guéris te ñoom ñëpp suma ah, cent juumul 117 Romains guéris donc te te ñoom ñëpp Covid organique bi moo leen guérir alors il faut juste euh, moi je pense que Sénégal lu mu def c'est un grand pas accepter euh, de faire le test et du côté du professeur euh, Daouda Ndiaye ñoom approuvé nañ ko donc euh, euh, reste à l'État et au ministère de la Santé de donner son feu vert par rapport à ça de toute façon Euh, les scientifiques ñoo si gën a mën prononcé wu que que moi en tant que journaliste pourquoi le président n'a pas parlé malheureusement je vais quitter le direct euh, parce qu'il y a j'ai fait une heure de temps ouais. alors je vais répondre sans doute si yenn question yi su ma amee temps rek je répondrai en privé incha allah Merci à tous qui ont suivi ce direct. Vraiment, euh, je suis euh, très honorée du intérêt bien manifesté à chaque fois. Merci, merci. Je ne vois même pas le temps passer parce que vous réagissez euh, instantanément. Thank you et à tout de suite sur la page.